بصرف المسيات كيما تقود سمام للرسيات أبدا إذا ازداد قلبي أذن بهجتها ووجغت لي هدايا بالمبرات أمست تطيب نفسي كي أميل لها وولت ميل قلبي للهديات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 wa fikrati nawwir wa qalbi arsida saddid lisaani nawwir janaani safi amaani wasid baraa'i asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñoo ngi sant suñu boroom tabaaraka wa taala ni mu yellee ci jëmmam bi te as njaamam lottu ci lool di julli tey sëlmal ci sayyidul kawnayni wattaqalayni wal fariqayni min ulbin wa min ajami sallallahu alayhi wa sallam jàmmi yàlla ak xéewalam yàlla na ko yàlla def ci moom mboolem ak mboolem ay saxaabaam ak mboolem ña ko toppoon ak mboolem ñiy xeeñtu mbooram waaye euh, di yeesal suñu pas-pas ak suñu jaayante ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul euh, téléspectateur téléspectatrice yéen ñi safoo saxoo di topp seen mi Rewmi TV rawatina seen émission bi ñuy wax keppaaru mag ñi ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bi nga xam ne moo gën a kawi te gën a tedd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 bàyyi Hassan Seck ca ba moom la ñuy yutt euh, Cheikh Mahi Niass ca Medina Baye moom la ñuy jox Baye Cheikh Tidiane Niass ca Léona Niassène waaye boobu la ñuy jox maam Thierno Basir Tall mi amee jataay maam Cheikh Omar Fouti waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy yóbbu Njaasaan moom la ñuy yóbbu ci mboolem këru diine yépp bàyyiwuñ fenn te bàyyiwuñ kenn te bàyyiwuñ nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy jox mboolem koo xam ne yaa ngi topp tey safoo tey saxoo di topp euh, seen émission keppaaru mag ñi bi nga xam ne mi ngi am dimanche bu jot fii ci seen télé réew mi TV ngeen baaxoo ko ànd ak seen bokk sëñ Baara Mbacke muy am dimanche bu jot 22h jàpp minuit mbokk yi xam ngeen ne seen émission keppaaru mag ñi ni niñ ko baaxoo defee dimanche bu jot incha allahu taala ñu fàttaliku suñu mag ñi benn wala ñu indiwaat njàngale mag ñi fàttaliku ko ci ñaari format yooyu rek lay baaxoo di amee bii passé ñoo ngi ziyaara bu baax a baax a baax njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fati borom daarul moxti yi bii passé moom lañ doon waxtaane àndoon ceeg sëriñ Modou Awa Balla Mbacke moom sëriñ Abbas Mbacke moom a Cheikh Ibrahim Fatihi borom lu Daarul Muxti moom lañ àndaloon dimanche bi weesu ñoo ngi koy ziyaara bu baax a baax di ziyaar yi mboolem njabootu maam borom daaru gi di ñaan bisub ni su saabaan bi nga xam ne moom la ñuy dëgmal ngir fàttali ko ci maam borom daaru muxti suñu borom defal ñu ci tawfiix waaye defal leen ci ndam ñu am ci ndam lu kawe njort insha allahu taala te dajee cee ngërëmal ka daje woon ak sëriñam ba ka dajee woon ak soppeem ba te mooy bam borom daarul muxti ngeen ne seen émission keppaaru mag ñun noonu ñu ko baaxoo defee tey jiit insha allahu taala ñu fas yéenee waat lenn ci njàngaleem mag ñi waaye kuñ koy àndal suñ mbokkum daara al oustaz jaafar al sadiq Ndiaye ñu gën koo xam ci oustaz sadiq Ndiaye oustaz sadiq Ndiaye di jàngalekatu alquran yor daara ju ñuy wax daarul munaa mun munaa fii ci parcelle euh, di yëngu ci waar wi di borom xam-xam waaye di tasaari xam-xam yaakaar naa ci suñuy jataay yu jiitu ci rajo bi daan nañ ci ànd ak moom ci ay émission yu am solo am solo am solo ci ngir njàngaleem mu leer waaye alhamdulillah alhamdulilah fasaxa bu ko suñu borom defal mu mën a jottali xam-xam mi nga xam ne moom la ko yàlla jox xam naa dañuy jox suñ mbokkum daara sa Jaafar as-Sadiq mu nuyoo su ko defee incha allahu taala ñu daal di dikk ci li xam ne tey moom lañ fas yéenee waxtaanee al Oustaz fal tatafaddal mashkura bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashraf al anbiya wal mursalin sayidina wa moolana muhammadin al amin alihi wa ashaabi ajmain mbokki jullit yi mbokki baaxoo di ànd ak bi di keppaaru mag ñi ci njiital sëñ Baara Mbàkke noo nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp eh, di am mbégte kontante ci ñëwaat ci émission bi ndax yàgg nañu fay ñëw muy kër gu ñu meen lool. Mm-hmm. ay waxtaan yu am solo du fi jaar muy waxtaan yu mat a bàyyi xel. Mm-hmm. xam naa damay doyaloo rek sa nuyoo bi ndax nuyoo bi matale na macha allah. alhamdulilah te loolu la kàddu gi. alhamdulilah al ustaas nuyoo bi jot na nuyoo bi matale na yal na yàlla fay la. amiin yàlla ubbi sa dënn. fecc sa làmmiñ. ba njariñ li nga xam ne moom nga indil moom nga indil askan wi. ñu man koo jariñoo incha allahu taala nga man koo àggali ci ñoom ci gën jaa rafet yi anam bañ man koo jëriñoo waaye di beral ab nuyu akub ziyaara nag waa saamuk sëñ Baara Xuréja ñuy topp émission bi lañ di ziyaara kilifa ga sëñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne moo amee jotaay bi sëñ Baara ak sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa maam borom saam waaye it di sàkku it ci ñuy ñaanal boroom kër gi nga xam ne fii lañ mën a jottalee suñuy kàddu ba askan wi mën koo dégg mën koo jëriñoo alxaaji Mbagnick Diop ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom dolli ko sàmm te dollee yàkkali xéewalam ba askan wi yëpp mën cee jot wax dëgg yàlla ndax lii ab liggéey la bu rëy rëy rëy boo xam ne ay ay jullit yi ay ay ay personnes yu bëree bëree bëree bari bëri mbooloo ñu ngi ciy soo euh, ci jàngale mi nga xam ne ñu ngi ciy jàngale diine te suñu boroom dogal na ci moom la ko yàlla jaarale waaye kilifa euh, ki nga xam ne mooy kilifa liggéey bi alxaaji Moustapha ak euh, Mouhamed mi nga xam ne moo jàppandal xarala gi bañ man ñoo dégg ak mboolem ki ci gën a kawe ba ci man mi ci gën a suufee comme ni ma koy waxee waxtu wu ci nekk Al Oustaz euh, tey ñu indi njàngale mag ñi fas yéene koo fàttalewaat mm-hmm. njàngale mag ñi mooy ah alayhi salaatu wassalaam dafa séddale woon ñetti weer yi muy rajab ak saabaan ak ramadaan mm-hmm. doon weer woo xam ne bari na ay ngëneel lool looloo tax ñu fas yéene andiwaat dikkaat ci saabaan yi maanaam fas yéene ci indiwaat ay leeral maanaam ay ay njàngale yoo xam ne euh, nit ñi danañ ko jariñoo ndax kat saabaan weer la woo xam ne moo jiitu weeru koor tey nag olof yi dañuy wax ne maanaam ku jëm ci xare da koy pré da koy préparé da koy waajal xare bi mooy que ne weer wi nga xam ne moom lañ moom lañ jublu te nga xam ne mooy weeru jullit ñi mm-hmm. maanaam mooy weer wi nga xam ne weeru koor la mm-hmm. moom lañ mën weeru saxbaan war koo jiitu mu am yuñ ci ñu war koo waajalee weeru koor mm-hmm. xam naa dana dana dana gën a leer insha allahu taala damay ubbi rek waaye laaj bu njëkk bi mooy ban importance ndax li nga war a wax su ma ko waxee su boobaa li nga bëgg a jàllale ni <laughs> nga loolu laa ci jublu moo tax may wax ne li eh, laaj bi ñu lay njëkk a jox mooy kane maanaam importance bi nga xam ne weeru saabaan am na ko ak ni ko nit ñi sàgganee mhm. yaakaar naa loolu mooy suñu laaj bu njëkk mooy ahamiya mhm. importance bi nga xam ne mhm. weeru saabaan am na ko ak nit ñi niñ ko sàgganee ngir ñàkk koo xam barakallahu fiik subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim suñ baara laaj nga laaj bu am solo moo tax kenn ci saxaaba yi di usaama ibnu usaama dafa mos a laaj yonent bi sallallahu alayhi salaatu wa ne ko dama seetlu ne. Hmm. li ngay woor ci weeru Sha'baan. Hmm. doo ko woor ci beneen weer. Hmm. lu waral lool. mu ne ko. Sha'baan. dafa nekk weer woo xam ne dafa nekk ci diggante. rajab ak ramadaan. kenn umpalewut ne weeru rajab. weer wu bëri nga neel bokk na ci al ashhur al xurum mhm. ñeenti weer yi am worma muy zul qeeda mhm. zul xijja mhm. muharram ak rajab ak rajab zul qeeda mooy weer yi nga xam ne daaw ñu ci xare kenn daaw ci xare weer yu mag lool am worma lool rajab daf caa bokk ramadaan sës ci moom maanaam boo jëlee rajab shaabaan moo nekk ci digg bi ramadaan ñëw topp ci uh-huh. ramadaan yi nekk weer wu mag uh-huh. wu rëy uh-huh. woo xamante ni ci la alxuraan wàcc yàlla digle ci koor muy weeru jaamu yàlla ak fukki fanam yu ji yu am solo ya Shaabaan nag nekk gi mu nekk ci diggante ñaari weer yooyu muy rajab ak ramadaan moo tax nit ñu bari bàyyiwuñ ko xel moo tax yonent bi saa salaam bi mu tontu Usaama daf ko wax ne ko dane ko dafa nekk ci diggante rajab ak ramadaan moo tax yaxfulu naasu anhu hmm. nit ñi duñ ko bàyyi xel ndeysaan hmm. nit ñi dañ ko bàyyi xel hmm. duñ bàyyi xel ak màggaayam mu am leneen lu mu wax ci biir ba mu koy tontu mu ne ko turfaaw fi hiil amaal maanaam weer wi dafa am yu bari yu ci xew sëñ baara lu am solo loo xam ne jullit ñi war nañuy bàyyiwaat xel di fàttaliwaat jamono ji ndax yëg nga ne wala ndax yëgoon nañ ne mhm. ci weer wii mhm. ku nekk ci ñun mhm. say jëf yi nga jëf ci at mi yépp dossier bi ci weer wii lañ koy yéegal yor ko yor ko sunu borom tabaraka wa taala mu ci weer wii ku nekk ci ñun say ci at mi daañu ko dajale yor sunu borom tabaraka wa taala moo tax yonent saa salama ne ko li tax ma ci ma ma koy def may woor Shaabaan ma ci woor lu bari. Mhm. dama bëgg bu ñu yóbbu samay jëf. Mhm. fekk ma ma woor. ndeysaan uhibbu an yurfa amali wa ana saim wa ana saim dama bëgg bu bu ñuy yëkkati samay jëf di ko yor suñu borom tabaraka wa taala. Mhm. waxtu woowee fekk ma fekk man ma jàpp mu fekk ma ci koor. nga xam ne bu ñu may seet. samay mbir dana baax. la ñuy la ñuy seede mooy bokk na ci bis bi ñu yóbbu ay jëfam. dañ ko bàyyee koor fekk ko fekk woor. <laughs> tubarkal kon loolu. dafay wane. importance boo xam ne nga xam ne yonent bi sallam kon jëmmaloon na mhm. wane woon na mhm. ci taxawaayam mhm. fonk gu mu fonk weer wi daan ci woor woor gu bari ba ñëpp seetlu ko am na sax yenn riwaay yi wax ne daana woor weer wi yëpp am na ñu ne lu néew la ci daan bàyyi alaa kulli xaal weer la woo xam ne li mu ci daan woor daawu ko woor ci weneen weer wu ci yeneen loolu nag day wane ne kon weer wi am na taxawaay am na màggaayam bu rëy rëy dëgg lu tax fukki weeru koor mhm. moom la ci tànn di ci woor lu baree noonu mhm. kon dafay wane ne weer yu weeru màgg la dëgg la dëgg la waaw dëgg la baarakallah baarakallah oustaz Jaafar as euh, loolu am na solo mooy importance bi nga xam ne hmm. weeru Chaabaan am na ko andi nga ko léegi hmm. Hmm. maanaam alayhi salaatu wasalaam doy na sa rek ci ñu ne mooy weer wi nga xam ne moom la ëppoon lum ci daan woor loolu firnde la ci nee nga sax laaj nañ ko lu tax nga daan ci woor lu bari moom mu wax ne maanaam weer wi suñu borom da ci yëkkati jëf yi maam malaayka yi dañ ci yëkkati jëf yi yut ko suñu borom léegi bu ñuy yëkkati dossier bi di ko yit suñu borom jamono boobee bu ñu demee danañ mën a seere ne moom sax de bi ñuy indi ab téeram dañ ko bàyyee mu woor su boobaa loolu suñu borom mën na cee sukkandiku jéggal ab jaam mooy yu am importance loo xam ne war nañ koy bàyyi xel waaye nga wax n it mu doon bis boo xam ne fiiha am na ci bis boo xam ne ci biir weer wi rek lay am mm-hmm. muy fiiha yufraqu mm-hmm. kullu amrin hakim mm-hmm. ñaareel bayit mooy que ne nekk gi mu nekk ci diggante rajab ak ak ramadaan daa tax nag nit ñi nit ñi bàyyiwuñ ko xel mm, dafa ruqe daal rajab bokk ci weer yi nga xam ne it alayhi salaatu wassalaam da daf ko maanaam alquran daf ko wormaaloon suñ borom daf ko wormaal digaloon alayhi salaatu wassalaam ci xare buñ ci def nangam buñ ci def nangam buñ ci def nangam al ashhur Uh-huh. alxurum uh-huh. baarakallah am na solo lool maanaam nan nga ma mën a leeralee raful amaal yi uh-huh. raful amaal yi maanaam yëkkati gi ñu yëkkati jëf yi ak yan melo maanaam naka nga ko mën a melalee daal ci maanaam ci bis yi ak waxtu yi jërëjëf sëñ Baara gis nga bunt bi soo koy jàngat day xam ne yàlla sunu bon tabaaraka wa taala ku yittewoo jaamam ñi la wàcc wuñ ci àdduna rek bàyyi ñu noonu. Mhm. waaye waxtu wu nekk. Mhm. mi ngi ñu bàyyi xel. Mhm. ñëpp xam nañ ne. ku nekk ci ñun yàlla boole la ak ñaari malaayika. muy raqib ak atiid. nga ne maa yalfisu min qawlin. illaa amul benn kàddu gu nit ki jëf wax. lu dul ne dañ ko bind. moo xam xayran aw charran. amul lu lenn lu nit ki jëf. lu dul ne danañ ko bind. loolu euh, loolu yemul foofu de. Mm-hmm. suñ borom waat ci. Mm-hmm. di ñu saytu nag. Mm-hmm. suñ jëf yi. bis bu nekk. semaine bu nekk. at mu nekk ak ba yowmal xiyaam. suñuy jëf suñu borom tabaaraka wa taala daf koy saytu di ko xool. fan la toll. lan lañ def ci lu baax. ak lan lañ def ci lu safaan. moo tax laaj bi nga laaj am solo mm-hmm. raful amal mm-hmm. mooy ne mm-hmm. dafa am raful amal wala raful amal al loolu mooy bis bu nekk sëñ baara nu yëg ko ak ñu ñàkk koo yëg yàlla dana yebal ay malaayika ci kaw suuf ñaari yoon ci bis bi jamonoy fajar ak jamonoy tàkkusaan bu fajar di jot Mm-hmm. dana am malaayika yuy wàcc ñëw. Mm-hmm. bu ñuy ñëw. jël si dossier guddi gi jël dossier yi guddi gi waaw li commencé woon dem ci tàkkusaan ba guddi ba ci fajar gi. Mm-hmm. ñoom bu ñuy ñëw fekk équipe bu ngoon gi ñi ñi ñi monté woon démb ca ngoon. war a dem ñoom. wax lañ gis. li bu ñëwee ci kaw suuf. bañ fi yendoo démb ba ci guddi gi ba ci fajar gi. liñ fi gis lépp. buñ demee ñu nettali ko suñu borom. yaalamuun maa tafaaluun mm-hmm. équipe bu fajar googu. Mm-hmm. ñoom ñoo continuer ba tàkkusaan mm-hmm. ñoom it bu tàkkusaan jotee dañuy demaat bu ñuy demaat. ñeneen équipe ñooy ñëwaat. beneen équipe mooy bi xadis bi lu mat a jàngat la. xadis Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa wax ne. yataaqabuuna fiikum. mooy am na malaayika yi wutante ci yéen. malaayika. waxul al malaayika de mhm. malaayikatun la wax da koo nakiraal fiikum malaayikatun dafay wane ne kon mhm. ñi ñëw tey ak ñi ñëw suba bokkuñu mhm. nga ne man dégg naa dégg naa ci malaayikatun ji raqib yi ñu xam bokkut ak yeneen yi ba tey sax même ñii ñëw <laughs> uh-huh. ak ñi ñii ñëw tey ñi ñëw suba bokkuñu ndeysaan ndax malaayika la wax malaayika da nakiraal da nakira la waaw ndeysaan da koo nakiraal dafa wane ne maanaam ñii ñëw tey ak ñii ñëw suba ak ginnaaw suba bokkuñu bokkuñu wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa hu yàlla lay di sant li mu yor ci soldaar li mu yor ci malaayika kenn xamul du mu toll moo tax yataaxabuna fiikum malaayikatun bil layli wa malaayikatun bin nahaar am hmm. na ñuy monte guddi gi am na ñoo xam ne ñooy monte suba gi loolu lépp ngir lan hmm. ngir hmm. la ñuy def suñ demee danañ nettali lañ fa fekk liñ bàyyi ci kaw suuf ci riwaaya ba sax dafa wax ne taraknaahum wahum yusalluun wa ataynaahum wahum yusalluun ñi nga xam ne fajar ga lañ déparé dem am ñu ñëw mhm. ña ña mooy équipe bu ngoon bi yendu woon mhm. ba fanaan mhm. buñ demee lu ñu wax suñu ñun de bañ fekk bàyyi nañ leen ñu bàyyi <laughs> mu ne tamit ba ñuy ñëw fekk nañ leen ñuy julli ndeysaan kon ñami wax ñëw gee fekk nañ leen ñuy julli ba ñuy ñëw ba ñuy ñëw di monté ji ci tàkkusaan gi ci tàkkusaan gi fekk nañ leen ñuy julli waaw bu ñuy dem it suba bàyyi nañ leen ñuy julli waaw ndeysaan loolu mi ngi wax ak ñuy julli mm-hmm. xadis bi day wane ne mm-hmm. mboolem jaamu yàlla yi ñuy def mm-hmm. jullee ci ëpp solo wallaay yi ni ba pare mu tànn ci mu tànn ci waxtu julli wallaay ndeysaan di mala mu yebal ci malaayka yi pour ñu wàcc pour xool ci lu ñu nekk ndeysaan loolu dafay wane ne kon julli lu màgg a màgg a ndeysaan wallaay ndeysaan ndax sëriñ bi radiyallahu anhu waxoon ca mm. aljawhar nafis ne mm. wa xaafizan ala salaati annaha azamu al ibadaati fa azim sha'naha faasim sha'naha ah, wallaay ndeysaan maanaam julli mm-hmm. mooy jaamu yàlla gi gën a màgg ci jaamu mm-hmm. Mm-hmm. ndax mooy moo tax sax awalu maa yuxaasabu bihi al abdu yowma alqiyaama yowma alqiyaama li njëkk a seet mooy julli mooy bu baaxee lépp baax xadis bi tamit day wane ne mhm. jullik tàkkusaan mhm. ak jullik mhm. ci julli yi gën a am solo bokk na ci julli yi ëpp ngëneel yi ëpp doole ndax da ngay ko ciy nelaw li ah. ëpp ciy nelaw ngay jóge def ko julli yu mat a bàyyi xel la <laughs> foofu tamit dañuy day dugalaale ñi ñi li ñuy wax asalaat al wusta asalaat al wusta naam xaafizu ala salawaati wa salaatil wusta wa quumu lillahi qaanitiin salaatul wusta fuqaaw yi wute nañ ci ba ñaar fukki wax waaye wax ñaari wax yi ci gën a dëgër ñaar la Mm-hmm. muy almalikiya mm-hmm. ak shafiya mm-hmm. ñoom nee nañ mooy jullik suba wala jullik fajar ndax dañ ne ñoom guddeeg bëccëg a fi nekk diggante bi fajar moo fi dox kon mooy salaatul wusta mooy salaatul wusta bu dee xanaafi ak bi yi ñoom dañoo jàpp ne mooy salaatul asri waaye xaddis bii ñaari waxtu yi wax ne ci la malaayka yi wax ci yëpp génnul ñaari yooyu génnul ñaari yooyu ñenn ñi sax ñenn ñi dañuy wax ne ñenn ñi dañuy wax ne yéen foqaa bi dañuy wax ne julli yëpp julli wusta la am na ñoo xam ne. ala kulli loolu. am na ñaar fukki ñaar fukki wax daal <laughs> ndeysaan wuuteeg borom xam-xam yi ak yolomal la ci ñoom. Mm-hmm. ndax yaay xool rek bi nga xam ne moo gën a dëppoo sa jamono nga mën a mm-hmm. doxee ci boobu mm-hmm. te du tee euh, yaa ngi ci njub yaa ngi ci sawaab. baarakallah am na solo al ustaz Jaafar as-Sadiq leeral gi am na solo lool mooy que ni. suñu borom tabaaraka wa taala maanaam ci weeru saabaan da ciy yëkkati jëf yi. yëkkati jëf yi nag laa mm-hmm. doon laaj. Mm-hmm. waaye leeral gi am na solo lool. léegi tamit loolu. Mm-hmm. raf wi ñeenti étape la. wax naa benn bi rek muy raful yow mii bi. mu def raful usbuu bu nekk tamit noonu la yàlla loolu la malaayka yi ñëwaatee. xool li ñu def ci semaine bi ko yutale ko suñu borom. nga xam ne bi ñu doon leeral nii mooy raful yow mii. mooy raful yow mii na am ñaari yoon ci bis bi bu demee ñi ñëw fajar mm. xaaral ba tàkkusaan ñu dem mm. yóbbaaliwaat loolu mhm. mooy rafal yow mi mooy rafal yow mi bis bu nekk mhm. rafal usbuu yi mooy semaine bu nekk semaine bu ne mhm. malaayika yi danañ ñëwaat nga xam ne maandu teg yàlla gi moo tax yemul ci boole ñoom raqib ak atid allahu akbar ñoom seen dossier bopp la mooy kiraaman kaatib yow dégg nga wax ji <laughs> waaye bokkut ak nag yeneen malaayika yoo xam ne ñii par bis la ñuy yóbbu dossier ñii par par semaine la ñuy yóbbu dossier par semaine nga xam ne maandu teg yàlla gi rek moo tax dara du ko rëcc dara du ko rëcc ñii ñi ngi bind ñee di yóbbu par bis ñee di yóbbu par semaine ñee di yóbbu par at ñee yonent bi sallallahu daan faral di woor alayhi salaatu wa di woor altine ak alxames loolu siiw na mm-hmm, siiw na da ko daan def siiw na mm-hmm. saxaaba yi bi gisee loolu mm-hmm. ñu laaj ko ko mu ne leen li tax ma koy def mooy ba tey turfaw fiil amal ilallah ndeysaan mooy alxames ak altine ak altine waaw baarakallah suñ borom da ciy yëkkati jëfi jaam bi Mm-hmm. daa malaayka mm-hmm. yi ñëw di gis jëf yi di ko yóbbu ndeysaan ndeysaan mm-hmm. mu wax nag ci la mu waxoon ca Chaabaan li tax ma koy mu ne li tax ma koy woor mooy ñaari bis yooyu bokk na ca ma bëgg suñu yëkkat samay jëf fekk ma ma woor ndeysaan toorkal kon loolu tamit dafa bokk ci sabab yi tax mu ko daan woor ndeysaan mooy altine ak alxames ak alxames dëgg la mooy bis yi nga xam ne ci semaine bi ñii mm. altine bi ci lañu yëg seen jëf mooy lënd bi mm-hmm. ñeneen ñi ci alxames bi ci lañu yóbbu yóbbu seen i jëf mm-hmm. Mm-hmm. am nay rewaay yu wax sax ne altine ak alxames boobu suñu boroom da ci ubbi bunti aljanna yi altine ak alxames waaw ndeysaan loolu sax na ci xadis sax na ci xadis xam naa euh, ñetteel bi mooy wax nañ ko mooy rafu al euh, euh, asanawi asanawi moom lañ jëkkoon wax ci saabaan bi nga xam ne saabaan ba saabaan mhm. day day day day yëkkatiwaale yi jëfi jaab bi loolu nag dañ ci dañ ciy jéggee ne mhm. eh, li ñu ko waxee rek suñ borom yitte woon a jëfi jaam ñi dëgg la koo xam ne dafay natt nit ñi ci bis mhm. bu nekk natt leen ci semaine bu nekk natt leen ci at mu nekk wallaay ndeysaan xool seeni jëf kon ku bàyyi am na solo nit ñi la xel yi jaam dëgg la dëgg sax suñ baara boo ko seetloo day mel ni ñun lii ñu li suñ borom def nii. Mhm. noonu dañ koy def. waaw. ndax mhm. barabu liggéeykaay yi rek. waaw da ngay évaluer bis bu nekk mhm, dañuy xool. semaine bu nekk. weer bu nekk. at mu nekk. da nga xam la ñuy lan moo dox ak li doxut. dana baax ak li baaxut. dañ koy def. kon day mel ni. yëg nañ ko yëguñ ko waaye li ñuy li ñuy def ak li suñ borom di def. dëgg la. xëy nag yàlla mi di jàmm ñu moo ñu ilham <laughs> ñun li ñuy def. ba ñun li ñuy administrer. ak li mooy ni suñ borom ñi daal. noonu la ñu orienté ngir ñu mën ko doxalee suñu àdduna waaw am na solo am na solo oustaz Jaafar as-Sadiq loolu day wane ne suñu borom yittewoo gum yittewoo jaam ñi ci ak maandu téem mhm. ne moos wallaay ndeysaan laa dara du ko rëcc dara du ko rëcc dara te manoon na it nag wàcc ñu ci kaw suuf mhm. bàyyi ñu ñuy tañax tañaxi rek mhm. suñ dajee ca péncam ma mu def ñu la ko neex moo tax yemal xiyaam lan la yàlla def bu ñu àggee ca raful xitaam yi ba wala ardul xitaam yi ba lan lay def iqra kitaabaka wala kafa bi nafsika al yawma xasiba ku nekk dañ lay jox sa téere rek ne la mi ngi ndeysaan barakallah wa ashaabul yamin ma ashaabul yamin yàlla nañ ca bokk wa ashaabu simaali wal xiyaasu billahi taala am na solo loolu oustaz Jaafar Sadiq kon lool day wane ne suñu borom maandu la mhm. maandu gi moo tax mhm. jaam bi waxtu wu ci nekk mhm. mu di ko wutal maanaam mu di ko wan firnde ne ko man damaa màndu mm-hmm. ndax it naa mënoon naa bàyyi ba bis penc ba rek mm-hmm. ñu dajee ca penc moom mu def lu ko soob mm-hmm. waaye yërmandeem yërmandeem ak bëgg jaam bi bàyyi ko xel ci lu mën a nekk moo tax yii yëpp di am xam nga ne keneen ñu wa inna aleykum la xaafisin kiraaman katibin boole naa leen ak raqib ak atib ñoom ñaar rek doy nañ comme que ñoom fu ñu toll ñoom ñi ngi ànd ak ñun di bind seen bind rek doy na rawatina ñoo xam la ñuy bind di ko yor dossier yi mm-hmm. boole ñoom ñoo xam ne par semaine la ñuy bind di ko yor dossier yi mm-hmm. boole ñoom ñoo xam ne dañuy bind par at mm-hmm. di ko yor dossier yi loolu day wane ne suñu borom dafa maandu te yittewoo jaam ñi nag li ma ciy déggee bàyyi leen xel loolu li ma ciy déggee daa am mbokk mu ma doon nettali ne ma Sëriñ Abdou laat da doon firi in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum maam firi mi mu ko firi man keroog laa ko mës a dégg waaye maanaam jàpp na ci laa xamee ni ndekete alquran sëñ bi am nañu yàlla may ñu dégg ko dafa ne sieblaat daf ne in tansurullah yansurkum mm. wa yusabbit aqdamakum mm. moom nee na ni mu koy firee mooy kene yàlla daf ne yow jaam bi sàkkal mawlay wu ma sukkandikoo ba jéggal la mm. yow jaam bi wutal mawlay rek mooy góorgóorlu lu tuuti tuuti rek man yàlla ma joggi ci jéggal la mm-hmm. tàbbal la aljanna in tansurullah yansurku wa yusabbit aqdamakum yàlla duñ koy dimbalee ñun mënuñu ko dimbali ci dara di nee dimbal li mooy mm-hmm. yàlla daf ne yow jàmbi mm-hmm. sàkkal maw lay rek seetal ma porox ndoolu bu ma jaar rek ma jéggal mooy que góor góorgóorlul mhm. ci farata yi même sunna yi boo ko mënul mhm. góorgóorlul ci farata yi mhm. même bu fekkente ni yooyu yëpp dafa doon sa problème baatu astaxfirullah yomb na même bu dul loolu saraxi benn keesu mbiskit yomb na mooy yow jaam bi wutal ma aw lay sàkkal ma rek fu ma jaar rek ba su ba ba jéggal la loolu day waree ne suñ borom bëgg a jéggal jaam bi moo tax mu yittewoo mbiram nii maanaam toujours mu di ko xamal ne ko am na ñu lay topp am na ñuy saytu sa mbir am na ñuy am na ñuy bind sa dossier ngi ci man ngir lan ngay bàyyi xel ci ni lépp looy def rek ngay bàyyi xel ci ne sunu borom tabaraka wa taala mi ngi ci sa kanam waaye it weeru Shaaban jahru gufraan zunub maanaam weeru njéggali ay bàkkaar la comme ni mu amee ci Ramadan léegi loolu nga ñuy indil ak xadiisu abi Moussa al Ashari al Ashari wér na ne weer wi weeru njéggalu bàkkaar la mhm. ñëw na ci xadis mhm. xadis abu musa al ashari radiallahu anhu mhm. mu wax ne ci nisfu saxbaan laylatu nisfu saxbaan buñ demee ba saxbaan am fukki fan ak juróom guddi ga ko jiitu suñ boroom maanaam guddi fukkeel ak juróom juróom nga guddi mooy jiitu bis bi waaye bisu fukkeel beeg juróom waaw kay ca guddi ga inna allaha la yattaliu mm-hmm. maanaam suñu boroom mm-hmm. dana xool waa kaw suuf mm-hmm. bu bu boobaa nag nee na fa yaxfiru jamia xalqi yi yàlla dana jégal mbindeefam yëpp mbindeefam yëpp ba mu des ñaar lu mat xel nee na yàlla dana jéggal ñëpp ci guddi googu mooy guddi saabaan bu demee ba fukki fan ak juróom yi nisu saabaan bi mooy tolloog màggalug daarul mooti maag maag ak borom daarul guddi googu mhm. suñ borom dana ci yëggal ñëpp seeni i bàkkaar ndeysaan loolu xadis bu wér-wér la mhm. mu ne nag ba mu des ñaar mhm. ñaar ñooñu mooy kenn ki may mushrik ku bokkaale yàlla koo xam ne day yàlla du ko jéggal ñaareel ba mu ne aw mushahinin mushahin nag mooy mu xaasim maanaam képp koo xam ne am nga xaar ma yàlla ak nit Hmm, wala meroo nga ak nit mu xaasim hmm, hmm. noonoo nga ak nit ba jàppal ko dara sa xol bu yàlla lay jéggale guddi googu du la jéggal yes billahi loolu nag dafay jàngale ne lislaam bokk na ci jàngaleem dafa bëgg nit ñi seen dënn yi set dara waru cee nekk dara waru cee dëgg la dëgg la waruñu am benn nooneel ak xaarma yàlla ak kenn waruñoo jàppal illa man atallaha bi qalbin salim ci lislaam sax meroo sax wurta passé ñetti fan dëgg la waaw mm-hmm. ah, meroo warut a paase ñetti fan. dëgg la. Mm-hmm. loolu. xadis bi daf ci wane lu am solo kon. Mm-hmm. kon weeru jégal bàkkaar yi la. nga xam ne bu ñëwee suñu borom day jéggal ñëpp seeni bàkkaar uh-huh. jami xalq yi la wax seetewul kenn ba mu des rek ku bokkaale yàlla wala ku ko weddi wala ku am xarma yàlla ak nit mooy ku meroog nit noonoo ak nit kooku moom yàlla du ko du ko du ko jéggal du ko baax moom da koy da koy xaar bu ñu bu ñu jibooyee nag mën na leen dabaatal jégal leen mën na leen dabaatal waaye saa bu ñu sa uh, wëyee ca loolee mm-hmm. nañ jàpp ne ñoom dañ bokk ci ñu yàlla jégal ci an moomu ndeysaan wala ci mm-hmm. guddi googu loolu it dafay wane ne kon mm-hmm. léeg-léeg mbiri àddina yi ñu topp ko topp ko topp ko ba mu dugal ñu ci yoo xam ne moo xam ci politique la moo xam ci xëccoo àddina la mu yóbbu ñu ci ñi jàpp loo xam ne adawa lislaam bëggu bëggul loolu bëggul nit ñi noonoo wala ñuy meroo déedéet dëgg la dëgg la amul lenn ci àdduna lu ñu war a boole lu war warante ginnaaw. ndeysaan loolu moom bokkut ci li principe l'islam. dëgg la bokkut ci principe l'islam. Mhm, mhm. am na solo oustaz weeru njéggal bàkkaar la mhm. wax nga ko léegi. am na ci guddi goo xam ne bu ci bu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na. buñ ci àggee suñ borom dafay jéggal. mbooleem jaamam ñi. ñëpp lay jéggal ba mu des ñaar. bokkaale yàlla moom dara dadul moom. yàlla nee na ci alxuraan. sama jaam ñi danaa jéggali bàkkaar yépp ba mu des. kuma bokkaale mm. laa yaxfiru ay yushraka bihi mm. waaye nag wa yaxfiru maa duna dalik maa duna dalik la wax mm. lu dul loolu rek mm-hmm. man yàlla mën naa la koo jéggal yo jaam bi waaye biñ dool dolli dafa am solo muy mm-hmm. almuqaasim mm-hmm. maanaam koo xam ne dafa xuloo ak nit jàppal ko dara ci xolam li feek ñoom ñi nekk ca biir xuloo ba wala li feek ñi ngi jàppalante een suñu borom buy jéggale da leen teggi loolu day wane ne kon ab jullit ab wërta jàppal mbokkum jullitam ci ab xolam lu ëpp ñetti fan mooy que ni boo ko meree lum néew néew lislaam sax loolu la ñu ko jàngalee ci alxuraan mm-hmm. Mm-hmm. mooy sa digg ak sa soxna mm-hmm. su fekkente ni da ngeenoo am ay kii waar ko mooy woo ko dikk ko ne ko nangam ak nangam ak nangam li ngay def nii waroo koo def defal di nii nga war a defee ah boo ci jugee lu ñu lislaam digal mooy tong ko mooy que amal ñetti fan yoo xam ne boo boo bu tëddee ci kaw tëddal ci suuf bu tëddee ci néeg bi demal ci saal ba mhm. waaye ñetti fan mhm. su rombee ñetti fan la nga doon saafara saafara wu mhm. su boobaa waddari bu hun na loolu la alxuraan door a digle kon loolu loolu day wenn ni njàngalim lislaam mooy que ne suñu borom bëggul jaam ñi di aman di jàppalante een wala di xuloo wala di tongoonte wala yu demee noonu loolu toujours alxuraan daf ñu koy daf ñu koy tere njàngale mu am solo am loolu sax te loolu sax jamono ji de dëpp ak moom ndax situation ni mu demee Eh, wala situation réew ni mu demee mhm. xol yu bëri féewaloo nañ mhm, mhm. te loolu lépp ñàkk a dégg njàngalem lislaam ak ñàkk cee tënku ak ñàkk cee bàyyi xel moo ko waral waaye bu ñu tënkoo ci lislaam dëgg dëgg dëgg ak ci njàngalem bàyyi ko xel mën nañu wute ci politique ak lu nekk mën nañoo wute ci pas-pas ak lu nekk waaye nooneel moom ci diggante ay jullit waru fa am waru fa am nga xam ne maanaam lu lu mu jaxasoo jaxasoo jaxasoo jaxasoo mën nañoo jàpp ne mhm. lii mbirum àdduna la lu fi jàpp mhm. lu fi lu fi jaar la waaye mhm. ci biir xol yi ci biir xol yi wërta indi nag ak noonu ci suñu diggante ba ray ak yeneen ak yeneen gaañ ak blessé yëpp lu ci am loolu wërta am ci diggante ay soo amee rek mooy kon mhm. njàngalem lislaam tënkuñ ci wala fàtte kon fàtte nañ njàngalem lislaam am na solo lool am na solo lool oustaz Jaafar Sadiq mhm. maa ngi fàttali ne yéen ngi topp seen émission keppaaru mag ñi di xewee fii ci seen télé Rewmi TV mhm. ngeen mën koo topp ci canal 108 wala mën koo topp it ci Rewmi FM 97.5 euh, mën koo topp euh, euh, tey ñu day dalal al oustaz Jaafar as-Sadiq sa Serigne Sadiq Ndiaye mm. di boroom xam-xam bu mag macha allah allo Oustaz xam naa dañuy tëkk njëkkanteeg waxtu wi rek mm. xam naa ne weer wi it bari woon na ay xew-xew yu ci xewoon mm. ba ci sax daa mel ni penku bi ñuy jublu ci la suñu borom subhanahu wa taala soppee woon ñu bàyyi ko ñu bàyyee jublu baytul maqdis waaye di jublu xibla uh, bii nga xam ne muy kaabatu macha allah laajar nga laaj bu am solo mm-hmm. ndax jullit ñi njëlbéenug lislaam mhm. bu ñu daan julli dañ daan jublu baytul maqdis mhm. mooy fële ca euh, Filistin mhm. mooy Jérusalem fa lañ daan jublu yonent bi salama ci al isra wal mi'raj ginnaaw bi ñu jógee Taif ak la ko fa dal ak coono yaag ndeysaan ñu boole ko ñu koy sànni doj te naan ko day jabaraani <laughs> gone yaag lay ndeysaan mu jógee ci sonn lool mm, suñ borom dafalee ko nag al isra mm. mooy jële ko Makka. Mhm. ànd ak baytul maqdis. mu mhm. riñaan. Mhm. yéeg. dajeeg boroomam ci rajab la woon. ba mu demee dajeeg suñu borom bokk na ci la ko suñu borom jox mooy julli juróom. julli juróom. ba mu ca jógee. Makka xaw a ci moom. suñu borom digal ko mu gàddaay. mu gàddaay dem Madina dem Madinatul Munawwara kon boobu dañu doog nga xam ne bi ñu farataalee julli. ak bi mu dem Madina soreewuñ. soreewuñ. mu jógee fa dem Madina. def na fa fukki weer mhm. ak juróom benn mhm. wala ñu ne fukki weer ak juróom ñaar ak ñetti fan am na ñu wax mhm. lool ci xadisu barra imaamul Buxaari génne na ko yonent bi saa salama ñëw na Madina di julli di jublu baytul maqdis lu mat fukki juróom benn wala fukki weer ak juróom fan ci yi nga xam ne kon njëlbéenug lislaam dañ daan jul baytul maqdis lu mat a fàttali la dëgg la dëgg la dëgg la waaye day mel yonent sa salama amoon na bëgg-bëgg mhm. xibla gi nekk mhm. feneen maanaam nekk ci kaaba ga wala feneen mhm, waaw moo tax ci alxuraan nga gis suñu borom di wax ne qad nara taqalluba wajhika fi sama fekk boobu day xool ci asamaan si xool rek moom yonent bi gis naa li ngay def boobu mi ngi xeeñtu bëgg suñu borom wan ko beneen xibla suñu borom ne ko nag fala nu walliyannaka qiblatan tardaha dinaa la jox xibla koo xam ne dina sedd sa xol ne ko fa walli wajhaka hmm. shatral masjidil haram masjidil haram léegi hmm. orienté wul hmm. nga dem jublu ca masjidul haram masjidul haram ca kaaba ga mooy alkaaba al musharrafa waaw tekkee nag ne ko wa ma kuntum fa wallu wujuhakum fu ngeen mën a nekk ci adduna bi bu ngeen julleeti yéen jullit ñi fa wallu wujuhakum satra nga xam ne sëñ Baara nun fii ci Sénégal bu ma toogoon fii di julli léegi fii ma jublu nii xibla gi damay wóor ne kaaba gi laa jàkkaarloo wallaahu lu mat a xel la. lu mat a bàyyi xel la. lu mat a bàyyi foo taxaw. Hmm. taxaw taxaw ci xibla gi. Hmm. na nga jàpp ne. kaaba gi sa kaaba gi moo nekk ci sa kanam. waxee su ma kuntum fa wallu wujuhakum satara. fa wallu wujuhakum satara. loolu tamit alxuraan suñu boon dafay jàngale lu am solo. Hmm. ndax bu yeboon ci. fa walli wajhaka. satral masjidil satral masjidil naa andi jafe-jafe. ndax su boobaa. werante waroo xam ne dafa yaatu. dafa yaatu dafa yaatu mën nañu koo gisee ne kon lii kat waa Makka ko moom wala waa Madina ko moom. waa Madina ko moom mm-hmm. moo tax. muy ñu a jàpp ne foofa kat dëkk yu ko wër rek ñoo ko tax di wax. sew sew bu am solo. waaye suñu borom tekki luy luy tëj débat bi. bu débat ba ñaam <laughs> mu ne leen waxee suma kuntum. conclure na ngeen mën a nekkati ci àdduna. <laughs> dëgg la dëgg la jotee foofu lu wujuhakum satra da ngeen daal di uh-huh. jublu ca uh-huh. Kaaba ga uh-huh. loolu lu am solo la. beneen bi ci topp mooy. masjidul haram. masjidul haram. Mhm. Euh, inna awala baytin wudia linnaasi mhm. lallazi bi bakk lallazi bi bakk mooy <laughs> foofa mhm. nee na mooy néeg yàlla bi njëkk mooy jàkk ji njëkk ci ko suuf mooy mooy mooy mooy masjidul mu am lu ci am solo ndax suñ baara xamoon nga ne wala xamoon nañ ne wala ndax ñi ñuy bàyyi xel xamoon nañ ne masjidul xaraam fi mu nekk ak baytul maamour ci asamaan ñoo tolloo la ilaha illa baytul maamour fa fa suñ borom wàcce woon alxuraan. wallaay ndeysaan. ci guddi leelatu xadar. Mm-hmm. ginnaaw ba mu koy wàccee ay pàcc pàcc. Mm-hmm. ci ñaar fukki at ak ñett. Mm-hmm. saal boobee. noonu laa ko mën a misaale saal boobee. yonent bi saa salama nee na bis bu nekk. juróom-ñaar fukki junni malaaka dinañ fa dugg génn. dinañ fa duggaat ba yemal xiyaam. la ilaha illallah wa ma yaalamu junuuda rabbik. illaa huwa mi ngi doog a ñëw. wala mi ngi gën a fës. <laughs> la ilaha illallah. ndax bis bisi yàlla yi 365 jours yi nga xam ne mooy at bu ci juróom-ñaar fukki malayka rek loolu rek mbooloo la juróom-ñaar fukki junni malayka juróom-ñaar fukki junni malayka bis bu nekk danañ fa dugg génn mhm. te ñi fay dugg tey di génn ak ñey duggaat suba ay ñey dugg <laughs> ndeysaan torkal baytul mahmour uh-huh. moo kaaba gi mhm. fam nekk ci asamaan ak kaaba gi mhm. ñoo tolloo ñoo tolloo ndeysaan baarakal xam ne da koo tiim wallaay ndeysaan loolu cherché fa mu nekk barab bu am solo la. am na solo am na solo Oustaz Jaafar Sadiq leeral gi am na solo lool xam naa dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek euh, leeral nga ne ci weeru wii nga xam ne mooy weeru Shaaban ñu koy wax baraxlu ci ñun wolof yi mhm. dafa boroxlu diggante <laughs> diggante Ramadan ak Rajab mhm. <laughs> ñu koy wax baraxlu mhm. euh, weer wi ci la suñu borom soppi woon xibla bi mooy ci la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam di téen di xool ci kaw asamaan bi bi nekk Madinatul Munawwara suñu borom ne ko xad nara taqalluba wajhika fi sama mm-hmm. waaye fa la nu walliyannaka qiblatan tardaaha mm-hmm. mooy danañ la wëlbati mm-hmm. maanaam danañ la wan benn xibla boo xamante ni da nga ko gërëm te loolu mooy chatral masjidil haram foo wali wajhaka chatral masjidil haram waaye ngir débat bañ a am ñu naan waa Makka ko moom waa Madina ko moom suñu borom daal ci teg loo xam ne moo conclure débat bi waxay suma waxay su kun waxay suma kuntum fa wallu wujuhakum satra li allah yakuna li naasi mm-hmm. <laughs> di ngoog loolu la alquran wax am na solo lool sew ma ci mm-hmm. yokk it mm-hmm. mooy borom xam ne dañuy wax ne att bi njëkk foole ci lislaam mooy att bii nii ah. waaw ndeysaan mooy maanaam ñu daan di jublu fee joxe benn at ñu koy def ba si yàgg mm. mu joxewaat benn na mu nasaxal atte boobu indiwaat benn at mi ngi woog mm. mooy li allah yi kon naasi aleykum xujja mm-hmm. mooy gi nga doon wax léegi mooy que ne au lieu que nit ñi maanaam jox na leen lay mm-hmm. woo xamante ni illa alladina zalamu maanaam li allah yi kon naasi aleykum xujja illa alladina zalamu minhum falaa tax sa wax san mooy que ne bu ci bu ci débat naree am rek yéen am ngeen lay mooy suñu borom nee leen fu ngeen mën a nekk fa wàllu wujuhakum satra te sax suñu te jëkk a mu ñëw ci muy leeral dafa wax ne mhm. sa yaqulu sufahaau min annaasi maa wallaahum an qiblatihum lati kaanu alayha <laughs> ndeysaan mooy baytul maqdis baarakallah dana am ay sufaha nit ñu gàtt xel mhm. profito bëgg a wax naan mhm. waaw ñii moom lu tax xibla gañ nekkoon ñu bëgg koo bàyyi ñu bëgg koo bàyyi suñu borom tontu ko ne wax leen ne leen xul <laughs> uh-huh. lillahi almashriq wal maghrib wallaay ndeysaan wax leen ne leen yàlla moom moom penk moom moom sow wallaay ndeysaan waaw wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan am na solo Oustaz Diaffar Sadio am na uh-huh. lu ma ci bëgg a leeralaat foofu uh-huh, mu sew sew bu mat a mooy ne xibla ak penk du benn loolu ñu bëri bàyyi ko xel xibla ak penk du benn fi ne nii ñun suñ penk mooy suñu xibla mais am na réew yoo xam ne seen penku du seen xibla. dëgg la. boo demee Makka ak Madina. Mhm. seen penku du seen xibla bokkuñ. seen penku ak seen xibla bokkuñu. <laughs> loolu mooy tax nga mën a. ndax fa doonoon seen penku mooy seen penku. xam nga jàng jàng nga ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne. alayhi salaatu wa mhm. bu ngeen dem toilette. bu ngeen jublu xibla te bu leen ko mooy bu leen ko wan. bu ko mi mi ngoog. xadis boobu kon ko indi Sénégal dégg. dëgg la. daf lay wan ne kon xibla ak penku du benn dëgg la xam nga lam ca teg sax dane walaakin sharriqu aw xaribu wallaay ndeysaan foofu ko fay dem toilette mhm. na nga jëm penku wala sow te penku ak sow fii mooy suñu xibla mooy day tekki ne xibla <laughs> sew sew sew sew bu am solo am solo am solo la nga xam ne nekkul ne réew mu ci ne seen xibla mooy seen penku non non demul noonu barakallah am na solo xam naa damay njëkkantee waxtu wi rek euh, alusas xam naa ne waxtu yi dab nañu waaye suñu laaj bu njëkk mooy que ne weer la woo xam ne dañ koy waajalee ramadaan ak. yan yan duruus. Mm. lañ ci mën a jàngee maanaam yan bind. Mm. lañ mën a jàngee ci weeru shaabaan mm. ak ngëneel yi nga xam ne moom la ko yàlla jox. tey weer la woo xam ne dañ koy waajalee ramadaan. waaw xam naa mooy question bu mujj bi. ci ñaari minute wala ñetti minute rek su ko defee ñu daal ah, dafa nekk benn muqaddima. Mm-hmm. maanaam tey booy ni nga xam ne yenn fuqahaa bi dañuy wax ne. Mm-hmm. nii. ar rawaatib mhm. naafile yi nga xam ne dafa ànd ak julli yi juróom lu mel mhm. ni mhm. tisbaar ñeenti raaka yi ko jiitu ak ñeenti raaka yi ca ginnaaw ya ko mujj wala tàkkusaan ñeenti raaka yi ko jiitu ni mel ci tisbaar ji wala tàkkusaan ji noonu la chambaan weer weeru chambaan mel ci ramadan dëgg la xam ne kon weer la woo xam ne dañ ciy tàggatu ndeysaan ngir waajal weeru ramadan wi ndeysaan ci magi sëñ Tuubaa yi kay bari na ci ñoo xam ne ñetti weer yëpp lañ daan wóor rajab chaabaan ak ramadan ba pare gunge am na ci ñoo xam ne sax dañ ci daan boole moo tax <laughs> dañ ko daan wooyee dañ ko daan wooyee chahrul qurra chahrul qurra ni ñuy ni ñuy wooyee uh, ramadan chahrul quraan mm-hmm. mm-hmm. mooy weeru alquran moom dañ koy wooyee weeru jàngkat yi dëgg la dëgg la ndax mm-hmm. am na nit yàlla yi ñoo xam ne bu chaabaan ñëwaa dañuy tëj seen place seen liggéeyukaay dañ koy arrêté. ndeysaan lépp rek nekk ci téereb yàlla. ngir waajal ak nekk ci jaamu yàlla. ndeysaan ngir weeru ngir màggaayu weer wi. ngir màggaayu weer wi ndeysaan. Mhm. loolu tamit day wane ne kon weer wi weer wu mat a bàyyi xel la. kon ak a mat a bàyyi xel ndeysaan. préparation la kon ci weer wi ñu jëm. nga xam ne mhm. nit ki dana tàmm koor. Mhm. tàmmu jàng alquran. tàmmu naafila. tàmmu saraxe. tàmmu def lu baax. bu koor gi ñëwee du am benn jafe-jafe. dëgg la dëgg la. xam naa kon bu fekkee amaatoo looy loo ciy jaar. maanaam yan leçon lañ ci man a lañ ci mën a jàngee ci weer wi ci yi nga xam ne moom la mën a jaam bi man na cee mën man na cee tàggatu ngir insha allahu taala ramadan bi waaye yi ñu ci mën a tàggatoo rek mooy mhm. le fait que mi ngi ciy woor lu mhm. bari mhm. loolu dina ko tax mu tàmm woor bu koor gi ñëwee kon doo am jafe-jafe woor dëgg la bu ci tàmmee julli yu bari dana ko may. bu weer wi ñëwee tamit. doo am problème mu naafi la. doo am problème mu naafi la bu ci tàmmee jàng alxuraan lu bari. Mm-hmm. rawat na sax weer wi yi ñu ne bu ñu ci àggee. Mm-hmm. day laaj taxaw di naafile kaamil wala jàng alxuraan ju bari dëgg la dëgg la kooku mm-hmm. yeesalaat sa alxuraan bee salaat ko. bu gën a dëgërit. dana ci dimbale ki. dëgg la. day bu ci nit kii di saraxe di ci di ci di ci dimbale ay jaamu yàlla. yooyu yëpp dafay tax bu duggee ci weer yi loolu. fekk nga xam ne weer la daal woo xam ne mën nañ cee préparer koor. naam. noonu mm-hmm, mm-hmm. noonu la. am na solo am na solo Oustaz Jaafar Sadiq weeru Chaabaan lañ doon waxtaanee mm-hmm. ngir ngëneel lii nga xam ne moom la ko yàlla jox. ak it nag wàccaay weeru koor. weeru incha allahu taala du ñàkk sax. su yaatu amee incha allahu taala danañ amaat ak yow beneen. émission mu nekk tamit mu nekk tamit weeru tuub. weeru tuub moom Chaabaan. ndax weer woo xam ne. ci lañuy ñuy jëfi at mi yëpp ci lañ koy yot suñu borom. Uh-huh. balaa dem. balaa jëfee dem nag. ma mhm. tuub nag jar na ko. jar naa tuub <laughs> dëgg la dëgg la. la waaye weeru tuub lay. weeru tuub la aussi yàlla day jéggali waaye jaam day tuub. jaam day tuub yàlla jéggal ko. loolu mhm. borom la. tabaaraka taala yaa ayyuhaa llaziina aamanuu tuubuu ilaa llaahi. tawbatan nasuuhan yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla mhm. na ngeen tuub ci seen borom mooy na ngeen dellu ci seen borom. ngeen ko jéggulu tuub gu sell asa rabbukum ay kafiraankum sayyaatikum. ndeysaan ko fay ga mooy way doxalakum jannaatin jannaatin jaal lakum jën <laughs> baarakallah am na solo am na solo sëñ alustaas Jaafar Saadiq euh, ñi ngi doon waxtaane weeru Shaaban ak ngëneel li nga xam ne moom la ko yàlla jox waaye it ni mu mën a préparé weeru koor mm. weeru koor wi nga xam ne insha allahu taala xam naa ne ay fukki fan ñaar fukki fan rek ciy bëgg a des mm-hmm. ngir wax ngay lu am solo mooy que ne weer la woo xam ne weeru préparé préparation la mm. mooy que da ci nafar sa alxuraan di ci hmm. jàng alxuraan lu bari dana tax bu weeru koor dikkee hmm. nga man a taxaw tari ko hmm. di ci julli lu bari dana tax nga taamu julli yu bari di ci sarax yi dana tax nga man ko caa def di ci jokk ak bokk di ci def di ci def yu baax mboolem yu baax yëpp waaye di ci tuub di ci tuub ndax kat weeru ramadaan day weer woo xam ne lu la yàlla daan da yàlla danay defal benn ma fay la fukk bu weeru ramadaan dikkee boo defee benn mu fay la téeméer maanaam fukki fukk la lay fay au lieu que mu fay la fukk yam la daan fay ci yeneen weer at mi waaye fukki fukk léegi nag benn tomb bi ma ci bëgg yokk mooy mhm. lii tamit dafay wane ne mhm. bu Saxabaan jeexee mhm. ba Ramadaan di dugg kon ku nekk tijjil nañ la benn paas bu bees ci sa dund dëgg la dëgg ku nekk am nga récit bu bees bu bees tàq boo xam ne dara nekk ko ci dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la jëmaat déwén baarakallah am na solo xam naa da waxtu bi dem nañu da ngay tàggatoo rek incha allahu taala ah, su ko defee waaw ñu daal di euh, yëkkati ci tay di la sant dina gërëm bu baax a baax jërëjëf jërëjëf di nuyu technicien bi mhm. di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuhu al ustaz Jaafar fay la amiin njàngale mi nga indiwaat it tey ci kër gi leer leer na tey manis na koo dégg ci weer wi nga xam ne ci lañ nekk ndax it maanaam nit ñi fi mu ne weer yi daanaka am na ci ñoo xam ne fii mu ne boo leen boo naan leen ay baraxlu wala nga naan ay saxabaan sax ñoom ay ree lay doon ci ñoom te jullit bi dafa war a xam weeri jullit li raflati naas gi ñu waxoon mooy ñëwaat mooy ñëwaat rek nit ñi dañu càggante gi mi ngoog moo ñu jàpp jàpp ba yu bari duñ ko bàyyi xel baarakallah maanaam jullit bi dafa war a xam weeri jullit yi mhm. xam weer wu ci nekk lan lay fii ak mhm. lan mooy ay ngëneelam ak yan mhm. lañ ci war a def bokk na ci weeru saxabaan wi rek guddi ngi su saxabaan boobu ko wax am na ci ñaar yuñ ci baaxoo def boo xam ne borom borom xam-xam yëpp saxal nañ ko moo maa ngi koy baaxee jullit yëpp ñu man koo jariñoo mooy euh, guddik weeru euh, maanaam guddik euh, su saxabaan mooy fukki faneel fukkeelu fan bi ak juróom guddi goo maanaam fukki fan yi ak ñeent mhm. guddi fukk ak juróom gi mhm. su fekkente ni juum ma dimanche lay doon ci mhm. guddi maanaam wax nañ ne diggante timis ak géey ku ci jàng ñetti yaasin benn yaasin bi da nga ci yéene gudd fan benn yaasin bi nga yéene ci doy doy maanaam am lu la doy ba doo ba doo soxlaal kenn dara ah, benn yaasin bi nga ñaan suñu borom nga ñaan ci suñu borom mu musal la maanaam ñetti yaasin la yoo xamante ne am na njariñ lool yoo xam ne képp ku ko def suñu borom tabaraka wa taala mën na la cee mhm. mën na laa may li nga xam ne moom nga koy ñaan insha allahu taala kon ñoo ngi koy laabiri jullit ñëpp muy ñeent mhm. ñetti yaasin yoo xam ne baaxoon ko ciy mu am solo lool kon nañ koy bàyyi xel loolu moo waral nag jaam bi war di bàyyi xel weeri jullit yi maanaam ndax weer wu ci nekk la muy àndaale mm, war boo ko bàyyee xel soo fexee mu yóbbaaleel la ko mm-hmm. balaa del si waat déwén suñu borom mm-hmm. tabaaraka wa taala defar say mbir mm-hmm. kon lu ci jub yàlla la lu ci dëng matadi doomu aadama la sëñ mbokk sëñ baara mbàkke ngeen àddaloon ci kàddu gi in uridu ila l islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya ila billah wa aleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuhu ahmad suleyman bi sarfi almasiyat kayma taqooda simaamin lirrasiyat adan li tazdaada qalbi unnaba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 طورا تديني وتوليني دوائسها وتارة